seen rajo Mboro FM mooy kaddu askan wi seen rajo Mboro FM mooy kaddu askan wi. ñu nekk nit a ngi jàng te rombul portable am bii kon média dafa am doole loolu nit ñi war nañ cee yow waaye tamit ñu ngi dénk suñu bopp di dénk waajur yi muy góor yeeg jigéen ñi papa yeeg yaay nañuy gën a yee seeni xale kenn mënatul tere sa doom ni ko doo communiquer. média mook doomu aadama ñoo ànd ku yaakaar ni mën nga ko téye dafa mel na ku bëgg a téye bàggu géej gi ak sa loxo kon dara de sut yee xale yi ci seen xel yee leen seen xel xamal leen la ciy njariñ ñu di ko def lépp lu ci ngaañ ñu wattandiku ko ñu wattandiku ko bokk na ci dénkaan yi nga xam ne dañ koy dénkaane mooy ni ñi ngi euh, sant waa Mboro FM 100.6 ci seen liggéey bu rafet bi ñuy def ubbil imaam yi ubbil ustaas yi ubbil borom xam-xam yi ci loo xam ni ni ko sëñ ma sekk waxe ñoom ñoo waroon a fay ndax buñ leen ubbilul woon it danañ dem defi ko kon ñoom ñoo am pour sant gërëme waaye média yëpp war nañ def noonu war nañoo jox gën a diine ak lu am njariñ war nañ koy tas nit ñi xam ko jël lu tekkiwul dara moo xam ci média digital bi la wala mu nekk média bu njëkk ba war nañuy jël ñi nga xam ne ñoo tekki daal di leen teg ci kanamu nit ñi ñu nekk ay exemple waaye ay médiocre ñoo xam ne dama yàlla baal tekkiwuñ dara waxuñ dara dara lu am solo tey léegi boo duggoon ci TikTok beeg ñoo ñooñu ngay gën a gis doo xam luñ jublu ci loolu réew muy doxee noonu jëmut fenn te média du ay kaf du ay caaxaan jihaad la fi sabilillah mbokk yi maa ngi jéggalu lii may wax fii lu fi rafet maa ngi koy sante borom bi jàlla wa lu fi ñaaw man mi ma ko def seytaan yi ma ci xiir maa ngi ciy jéggalu yàlla sama borom di leen ci baalu àq hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka alhamdulillah ñoo ngi sant oustaz bu baax ci thème boo xam ne def na ko te mu nekk lu am solo di wax ni jot dal tuuti rek incha allah ñu mën a jeexal parce que waaw ñëpp nañ toog parce que monsieur le maire mu ngi fii Cherif mu ngi fii Cheikh war naa jël kaddu su ko defee ak suñu kilifa gi nga xam ne mooy sëñ euh, Mourtada Fall mu ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne war nañ jël kàddu su ko defee man fi may jeexale rek di wax ni borom bi subhanahu wa bu muy wax ci alquran inna xalaqna alsamawati wal ard bil xaq loolu li muy définir mooy kene comme alquran ab message la dëgg moo ko tax a jóg loolu moo tax borom xam-xam yi dañ lay wax ne nit ki suñ ko tuumale sharia li muy considéré mooy kene moom ku set wecc la bu ñu am ay preuve moom la wax ci wàllu usulul fiqh al aslu baraatu zimma loolu liñ ko jëlee ci benn règle boo xam ne bu général ñuy wax al istishaab beneen bi damay joxe benn kii bu ndaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu muy jógee bu muy waaj jóge jógee Medina dem makkatal mukarrama li dafa am kenn ci saxaaba yi ki ñuy wax xaatib ibnu abi baltaa dafa yónni kenn mu jël benn lettre mu daldi ko jël def ko ci kawaram daadi ko rab mu ne ko demal boo demee màkk nga wax sama njaboot nañu xam nan lañu toogee balaa yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu demee ci la jibril wàcc ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yónnil am na koo xam ne mu ngi duggante Medina ak Makka am na benn information boo xam ne mu koy yóbbu yonent bi ku mu yónni Umar ibn Khattab ak Ali ibn Abi Talib bu ñu demee ba dab ki nga xam ne moo yoroon lettre ba pour wane ne nit ki suy wax na wax dëgg mais ki nga koy ki nga yónni itam na wax dëgg bu ñu demee ba dab ko ñu ne ko yonent bi mooy yónni dafa am information boo xam ne am nga ko ñu ne ko yoon mu ne mën leen ma yoruma dara ñu daal di sol ci poose gisuñu dara yoo seet li ñu yoroon yëpp gisuñu dara Ali mu ne Omar kon nañ dëpp nañ delluwaat mu ne ko déedéet yonent bi li mu wax dëgg la yonent bi li mu wax dëgg la du ñu delluwaat mukk lu dañu koy génne ci moom ñu xool ndekete mu ngi ko rab ci diggante li nga xam ne mooy ci kaw rab ñu génne ko buñ ko génnee ne delluwaat ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xibaar bu judee Umar ibnul Xattaab dafa jóg mu ne dafay dagg baatam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko naka ngay def ak koo xam ne dafa fekke Badr te yàlla subhaanahu wa taala dafa seetaan waa Badr mën leen def leen lu leen neex dootu leen def benn bakkaar boo xam bu lool borom bi subhaanahu wa taala foofu dañ fiy jàngale ne nekk di lislaam dafa nekk benn diine boo xam ne dafa tabaxu ci dëgg bépp information boo xam dafay jënne itam di dem dafay tabaxu ci dëgg tey fi mu nekk nii ci wàllu média bokk na ci lu bari bari bari bari li ko yàq mooy kenn nit ki day dëgg benn mbir mu dëggal ko te gisu ko loolu moo tax charia daal di def ay barrage yu bari bari bari bari tey bu ñu tuumaale nit ki bu ñu tuumaale nit ki dañ lay wax ne da ngay indi ñeenti seede boo ko indiwul charia da lay dóor loolu moo tax foofu ñu bàyyi ci xel bu baax ci gàttal incha allah di ñaanal ñëpp su ko defee dañuy delloo parole bi su ko defee incha allah monsieur le maire mu ngi fi kilifa yu tedd yi ñu ngi fi incha allah Cheikh Tidiane ñu ngi am mbégte lool bu baax yal na yàlla barkeel ñëpp di sant bu baax suñu imaam suñu ustaaz yal na yàlla taxaw la barakallahu fiikum wa ahsana ilaykum seen rajo Mboro FM mooy kaddu askan wi seen rajo Mboro FM mooy kaddu di ko ziara di nuyu imam Bokar Ndiaye. bu baax a baax di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam waaye itam di nuyu suñu mag euh, Cheikh Tidiane Ndiaye di nuyu imam Pape Diop mi nga xam ne def na fi waxtaan bu am solo bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ci waxtu mu wax lii mu wax yépp professionnel rekk a ko mën waaye nag moom loolu jaaxaluñu ci moom ñun ñi nga xam ne ajuma june ñu ngi toog muy tafsir ñu koy déglu mu yeete di nga xam ne loolu rek di taxawaayam li ñu koy ñaanal mooy yàlla dugal fan wi yàlla yokk xam-xam am nañu bu baax ci moom mais dañuy sant les parrains parrain bi ak euh, marraine bi ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay dégg yàlla kontaan nañu bu baax Cheikh Tidiane Ndiaye ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gën yàlla jàppale lii ngay def ci Mboro man jàpp naa ne man tey man nga koy defal kon tey bu fekkente ne mën nga jël ay employé fii di leen jàppale ci sa doole dañuy sant yàlla li ñu lay sant la kon ñoo ngi ñaan suñu borom yal na yàlla yokk xéewal bi yàlla yokk sa sutura ba nga gën a mën a jàppale doomu aadama yi ma am mbégte bu baax aussi ci agent yi nga xamante ne nii ñoom ñooy liggéey ci rajo bi ñoom itam yàlla tàggat na leen tey jii ay nit lañu yoo xam ne ràññee nañu leen xàmmee nañ leen ci seeni jikko parce que nit bu fekkente ne ci rajo nga ne sa kàddu di génn war war nga warul nekk n'importe yi mais yàlla wërsëgal na la nga yor personnel boo xamante ne ni ay modèle lañu ay nit yu baax lañu ay nit yu xam la ñuy wax lañu waaye ay professionnel lañu kon nag ñoo ngi leen ci sant bu baax ñoo ngi leen di gërëm thème bi ñu wax fii lii ku mu doyul dara du la doy gis nga lii dafa am solo may liggéey ci dara. ma ibbi waxtaan ci loola te jii yaakaaroon nañu ne ñii liggéey fii ci rajo bi rek lañuy forme waaye tey képp ku fi teew jël nga xam-xam ci mbir amul kenn kuy wax ne sama poche portable newu ci te dafa accentuer discours am bi wala waxtaanam bi ci loola te li mu ci wax njëriñu kese la te dëgg kese la kon nag jërëjëf Diop en tout man am naa mbégte bu baax dama ne woon su ma ñëwee dinaa fi def 15 minutes. parce que li fi nekk ci conférence fii ba Tiwaawoon hmm. ëpp na juróom-benn te bu ci ne war naa caa teew waaye waxtaan bi solo si mu am mënuma woon a jóg man te jeexul parce que damay jàpp ne ku ciy jëriñu maa ëpp li mu ci war a jëriñ kon nag ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal di ñaan sunu borom lii nekk dégg-dégg boo xamante ni nekk njëriñ ci ñun mu bañ a nekk puukari ci ñun waaye nag mu nekk dégg-dégg boo xamante ne ñu amal njëriñ parce que li ñu fi wax. di utiliser médias yi ci utilisation boo xam ne njëriñ la danga ci amee tiyaaba da nga ci am ngërëmu yàlla dafa gën nga di ci jëlee loo xamante ne nii bàkkaar la waaye da ci am euh, mbëgalu sunu borom kon nag yàlla nañu yàlla muy dégg ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah seen rajo Mboro FM mooy kaddu askan wi seen rajo Mboro FM mooy kaddu askan li ñuy wax nag yàlla moo tax ñu koy wax dañu am kilifa ci kilif teg la dox ci lañuy ñuy dee tam ginnaaw Samba Xari nekk fi kii mooy suñu ndey booy suñu bàyyi ñoom ñaar ñii feeg maa ngi dund lu bëgg laa bëgg lu bëgg bëgg kenn ku mën a am alaaji Maalik bi ma yaakaar àdduna ak àllaaxira bu ñëwoon bëgg a dox sama diggante ak ñoom ma ba ko ànd ak ñoom nit dangay nangu li ma la gënale ab jullit du soxor ab jullit du fen réew mi nag naqare naa waxe waaye man di ku yóbbu sama wax sama frege nent parce li may wax yàlla moo tax ma koy wax da ngeen tudd jëmm joo xam ne dafa def lu kenn deful muy Adja Kaana Diagne mu jur Cheikh Ndiaye di aawa ngal bu Ndiaye nangu lu kenn nangul woon mu am lu kenn amul Cheikh lii du mérite sa ndey la ko liggéeyee te dangay tedd ba dee nit mënu ci yow dara ndax fu ngërëm di làqu sa baay làq làq nga ngërëm sa ndey ak sa baay ngàq say ngërëm say rakk ak say mag wax nag boo ko jibee Sénégal booy wax dëgg ñu ne dafa far man ku ma neex na da wax far ndax gëwuma kenn ku dul yàlla yaakaaruma kenn ku dul yàlla Cheikh mii duma taxaw buntu këram di ko laaj dépense maa koy liggéeyal sax kon li mu am ba yàlla defal ko ndam képp ku mu bokkal da ngay ñaan yàlla sagam woowu gën a yokk te incha allahu day gën a yokk gis ngeen rajo ngeen wax da am télévision billaahi télévision dina samp fii incha allah du question li ma bokk moom ndal bu njaay de déedéet ah ah sëriñ Babacar si radiyallahu anhu moom lañ ma tuddee moom ñu tuddee ko taawu sëriñ Babacar sëriñ Cheikh ko tudd moo ma tudd cofeel boobu nekk ci diggante sama baay ak Cheikh Tidiane moo nekk sama diggante moom bi bu yàlla doon tàggu tey jii jël ruu laata moo jël jël bos ndax moom dundam am na njëriñ ku baax la ku gore la ku dal la moom jëm ji toog ma am rak ku tukki barki démb ci guddi mu ne ma noo mën a def ak fu mu la mën a fekk na nga ko bàyyi ànd ak ñi nga àndal dem kër Cheikh nga teewee moo gis ba parce que man nga fekk tur ci muy Ablaye njaay muy rakk joo xam ne nii rakk ju neex a tiituroo la dafa am ku fi wax léegi ne Ablaye njaay du du tiituru du wane boppam déedéet ñi ko ñi ko jur la kuy beew rek da ngaa dara waaye kii li nga yor moomoo ko yàllaa ko moom da koy nangu boo beewee boo ëllëgee mu nangu ko jox ko ku dul beew rakk la joo xam ne rakk ju baax ju am respect ci magam mu yónni ma man mii di magam ba nangul ko ko li ko yàlla yi defal lépp damay nangul li ko yàlla defal du tee li ma yàlla jox mi ma koy jox ñu ànd bokk ndey ak baay muy nit ku baax di dox ci jumaa di dox ci lu yàlla gërëm lay dox lu yàlla gërëmul bokku ci mu ne ma yëkkati ab som teg ko sama loxo ne ba boo demee yëkkatil som bi nga teg na ko ci loxo Cheikh jan muy deux cinquante mille moo ko teg nii ci sa loxo bàkkile loolu waay kon donc bu ma yónnee damay sawar pour ñëw fi waaye di damoo tam sama mag ji Cheikh yàlla na la yàlla rus yàlla na la yàlla sutural yàlla na la yàlla barkeel njaboot goo jur yàlla na ci yàlla teg loxo maa ngi dogu Serigne Babacar bi moom laa yaakaar àdduna ak àllaxira képp ku ngal gu jur nangu naa nga gën ma ku ma ci def dara nga jéggal ku ma ci def dara jéggal naa la te yàlla waaye waat naa ci ku ngal gu jur boo góor-góor la dégg nga dégg ko mën a doon nag parce que ngal lu fi waaye am lii ngay li ngay tagge nii du yow de sa baaya sa baaya baax sa ndey raw ko kon donc loo fi am rek sa mérite la yal na yàlla faj jaami yàlla yëpp seen aju yéen ñi fi ñëw def conférence yal na yàlla taxaw yal yàlla barkeel seen xam-xam ñii di doon jàng ci Serigne Babacar si radiyallahu anhu ak jarutul ñu wuti jàngkat ndax ngeen sëkk yal na taxaw yàlla barkeel ñu fi ñëw yëpp jigéen ak góor seen rajo Mboro mooy kaddu askan bi wala ku mel ni imaam ndari ak imaam yi fi ñu ko joxalan rek tey ji baat bi neexul waaye fa tabaarakallaahu ñu sant yàlla bu baax di nuyoo di jiital ci nuyoo bi al imaamul akbar imaam Boubacar suñu xarit aydahullaahu wa nasara di ci teg monsieur le maire Abdoulaye Tall maire Mboro loolu yàlla dogal di nuyu ay ima ak kilifa yi fi nekk yëpp di nuyu ma euh, parrain bi Moussa ak Khalifa marraine bi sunu soxna sunu fàcceng barakallahu xam na li ñuy wax du gudd ndax temps bi mi ngi dem waaye dañuy wax ci kàddu képp ku nga xam ne yaa ngi xëy ci rajo bi dana wax ne Cheikh jërëjëf ñëpp kontaan nañ gars yi nee nañ da nga ànd ak ñoom ngor rek ak nawloo leen moo tax ñu toog fi waaye du dara luñ fi yaakaar fii yaakaar naa ni di nga dem ci télévision bu mag ci Sénégal ba rajo wala sa personnel bi doo ko fekk sa personnel bii amaana nga dem ci rajo boo naw Sénégal nag waaye ci xam-xam ci saxaafa muy culture ci bi yar ci xam adduna ndax arab yi dañuy léeb ni rubama yujadu fi nahri maa laa yujadu fi l bahri léeg-léeg nga fekk ci dex gi loo dul gis ci géej gi kon fa tabaarakallaahu njaay jërëjëf kontaan nañ bu baax suñu xol sedd na ndax lii dafa am solo wallaahi azim am na ñoo xam ne tey jii ci personnel bi tey laa leen mos a gis tey laa leen xam ndax heure yi bokkul tey jii am na ñu bari ñoo xam ne tey bu ndajewoon ci mbedd du ma leen xam moo tax tey lii nga def tey lu am solo boo yemantee dajale rek pour ñu xamante parce que réunion léeg-léeg mu am. man ma absenté wala imam Moussa euh, absenté te da ngaa jëmbataat tamit suñ xol wi ñuy wax al mahabbatu cofeel ak mbëggeel ak nekkoo benn imaam Lamine loolu ma wax léegi léeg-léeg mën naa am ñu dëkk Mboro waaye ni ñu ànd tey ma ma di la waxaat ni la barki démb dama dajeeg Ngom Seck nekk ci matinal ma ne ko yokkal sa ñaan wallaahi azim ngooma ngi ne le ndax dama toog ci jataay ñuy wax ci yow lu nga xamee ni yàlla bu ko ca jiitu chaque jour dañ may wax naa seen matinal bi day seen matinal bi rek doy na rajo muy groupe matinal bi macha allah waxuma laa nag imam Habib Diop rek doyoon na ci rajo imam Habib dem ma dis mun na war a jàngi fu mu war a jàng yëpp mu jàngi fa nekk imam imam Moussa Sow macha allah nga xam ni su imam Abdou ñëwul moom la jox kàddu ak ima yi. seen rajo Mboro FM mooy kàddu askan wi. seen rajo Mboro FM mooy kàddu waa Mboro FM ñoo koy màggal nabe jara màggal waa Mboro FM ñoo ko ci jaral loxo yi ومن تجار اللخرج كون أنا صبي سيد بابا كر وتجار اللخرج كون أنا صبي سيد بابا كر وتجار اللخرج كون أنا صبي ما موضوع ومن تجار اللخرج كون أنا صبي سيد فالبكر وتجار اللخرج كون أنا صبي سيد فالبكر وتجار اللخرج كون أنا صبي سيد بابا كر وتجار اللخرج كون أنا صبي Cheikh Tidiane Ndiaye ko ci jaral loxo yi ca kaw na ana soppey Cheikh Tidiane Ndiaye ko ci jaral loxo yi ca kaw na ana soppey Cheikh Tidiane Ndiaye ko ci jaral loxo yi ca kaw na ana soppey Cheikh Tidiane ko ci jaral loxo yi ca kaw na Maalikat loxo yi ca kaw ana soppey sëñ Babacar ku ko ci jaral loxo yi ca kaw na be jara màggale Mamadou jara màggal na be jara tantale Mustafa jara màggale ana soppey Muhammadu moo di teral Muhammadu moo موجي تيرم محمد موجي تيرم محمد موجي تيرم ياسين موجي تيرم طه موجي تيرم مزمل موجي تيرم مدثر موجي تيرم انا صبي محمد لامي كنا بجار الله خيجك رب لين تيرم Jabunati yonante be Jabunati yonante be Jabunati yonante be Mustafa gula fi bayi dem seti leneen lu muy wuti xam ana soppe yonen ana soppe sëñ Babacar xut na bi jaral loxo ca kaw ya man ata bi qimaasin fa iqim duraran ay baay قد جئت ما يجيب السودان والقرارات السبباي seen rajo Mbor FM mooy kaddu askan wi seen rajo Mbor FM mooy kaddu askan wi.